mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu noo ngi leen di nuyu di leen ziar fu ngeen mën di nekk rawatina yéen ñi nga xam ne yéenay topp seen chaîne bii di muqaddamatul xidma ak yu yu mel ni euh, chaîne boobu di topp seen jotaay xam-xam yi nga xam ni dañ leen ko baaxoo indil ci fan yi nu ne di fan yi màggal gi dépend ni cant ki nga xam ne Serigne Touba la ko borom bi doole gërëm moo ko woote ngir nu sant la ko boromam. Euh, tomb yooyu ñu ci baaxoo amal ci bërëb bii bërëb bu sell bii euh, ci la ñuy ànd ak yéen ba tey te nag mbokk yi tomb bi nga xam ne moom lañu fas ni waxtaan ak yéen mi ngi dañ koy jikkee ba tey rek ci tomb yi nga xam ni dañ ko jëlee ci njàngalem sëñ bi dañ ko jëlee ci njàngaleem sëñ bi te muy tomb yoo xam ne jamono laaj na lool ñu di ko nafar ak nafaraat tombu tay bi nag di li ñuy tudd al adlu asaasul mulk maanaam li nga xam ne cëslaay la ci ak nguur ñu koy wooye maandu xam ne ndëgër laay la ak nguur ci lay wéeru ci lay sukkandiku ngir maanaam mucc ayib kon tom boobu ci la waxtaan wi jëm ñu fa yéene ko ànd ak sunu euh, bokk sunu euh, sëriñ ci xam-xam sëriñ Fallou Seck al mufattish ñu meen ko lool ci jataay yu mel nii meen ko lool ci bërëb yi nga xam ne fa la ñuy sàkkoo xam-xam loolu mat naa ci seede bu baax a baax ndax jàngal na ma yàlla yàlla dolli ko tawfeex ci liggéey boobu te dolli ko barke kon sëñ Fallou Cheikh al Mufaddis li bàyyi nga nuyoo bu defee ñëw ci tomb bi incha allah. waaw ah, jërëjëf sëñ Abdoul Ahad bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf al mursalin sayidina walana muhammadin al amin wa ala alihi wa sahbihi al ghurri al mayamin wa man tabiahum bi imaanin wa ixsaanin ila yawmi ddin ñu ngi nuyu mbokki jullit yi ni seetaan yëpp di leen ziar ci fan yu yi ñu nekk muy weeru safar alxayr di tàmbali nuyoo bi ak ñaan yi ci sayid mahamadul muntaqa bi toog toogaay seexul xadim radiyallaahu anhu di ko ñaanal suñu boroom yokk ko kàttan yokk ko wér ba lim naal ci yoon seexul xadim bi ñaan laa ko ci lislaam su borom may ko mu eggale ko tan ànd ko moom di ziar nag tey ndokkee mbokki jullit yëpp ak mbokki taalibe yëpp ci weeru safar wi ñu nekk te ñaan tamit lépp luñ ciy def ci ay coobarewu ci ay jaamu yàlla sun borom nangul ñu ko fulal ñu ko te daje ca ngërëmal ki xam ne moo tax ñu koy def muy Seexul Xadim radiyallaahu anhu di sant Cheikh Abdoul Ahad Mbacké ci li mu ubbee jotaay bi muy suñ bokk taalibe yëpp ñu fas yéene ànd ak moom incha allahu taala waxtaanee thème bi nga xam ne ñu ngi ko jukkee ci euh, ni mu ko waxee ci mbindum Seexul Xadim radiyallaahu anhu te mooy leetar bi nga xam ne da ko bindoon buur bi ñuy wax Sàmba Lawbe bu bu bu buuru Jolof te. ci ginnaaw am borom mag ñëw ñëwoon fii yaatal ko ak ñun détaillé ko ba leer lool waaye ci biir waxtaan woowu nag gis nañ ne ndeke lettre bi dafa ëmb ay tomb yu bari loolu bu ci nekk jar na taxaw jar na yaatal moo tax daayira Rawdu Rayaahiin gis ne boobu nañ ci jukki ay tomb yoo xam ne bu ci nekk rek dañ ci gën a yaatal ngir njëriñ li gën a mën a yaatu gën a mat war tey jii ñu fa yéene waxtaanee euh, al adlu asaasul mulk di ko sukkandikoo ci lettre boobu yi. Mm-hmm. mooy ak ngóor kat pour mu taxaw day am fondement comme ab tabax rek ab tabax pour mu taxaw day am fondement léegi nguur nag fondement am li nga xam ne moo koy téye mooy maandu. loolu lañ fa seen waxtaan incha allah te loolu ñëw na ca tamit ci la taram si Abdou Ahad. Mm-hmm, ok jërëjëf suñu Fallou ci nuyoo bu am solo boobu macha allah kon nag day ni ni nga ko junjee rek euh, ñu ngi jukkee tomb bi ci euh, bataaxel boo xam suñ bi da ko bindal Samb Lawbe. Mm. lañ ci jëriñ mooy euh, li nga xam ne mooy maandu mooy li am nguur di di di di di di sukkandiku mooy mm. fondement am. Mm. kon dañuy ñëw ci suñu laaj bu njëkk jëm rek ci. laaj dëgg-dëgg lan mooy euh, lan lan la tomb boobu wuntu ci maanaam. lan mm. lay dëgg-dëgg ba ñu ko ba ñu ko mën a mm. noo koy noo koy indee suñu fàllu. Mm. Euh, waaw xam naa nin baaxoo rek bu koy waxtaan ci mbir euh, da tàmbali ci di xamle loola. xëy na sax ñun dañoo bëgg a gën a gën a gën baase wu gën a yaatal sax ci maanaam ni mu nekkee baasu nguur fondement bi waaye. pour ñu mën a àgg foofu fokk ñu tàmbali ci définition concept bu noppi ñaare nag euh, ci lo langue arabe ñaare dama yaakaar sax langue yëpp mm. waaye arabe da cee raw ab baat ñaare day am maanaam yàgg moo xam ne euh, moom la daan signifié ñu xamoon ko ci biir langue wa ñu koy jëfandikoo waxee noonu bi islam ñëwee nag comme ci arab la wàcc mu jëlaat baat yooyu joxaat benn maanaam bees moo tax ñaare fooy fooy waxtaanee ñaare dangay laaj nga jël baat bi concept bi jël ko ci linguistiquement waaye tamit boo ci paree nga ñëw ko ci wàllu ci concept bi moo tax kon fokk maandu. fokk njëmb ko xamle ci wàllu luxa ñëw nag ci euh, niñ ko islam jëfandikoo. su loolu mooy nekk départ bi pour ñu mën a xam euh, li ci topp te mooy ni mu nekk euh, fan baa nguur mm-hmm. kon nan maandu mooy mooy yamale. par ci loxo rek mooy almusa mooy yamale loolu ñëw na bari ñëw lu bari ci ay alxuraan yu bari am su borom mi ngi wax ci suuratu anaam summa lasina kafaru bi rabbihim yaadiluun maanaam ñi nga xam ne ay yéefar lan dañuy yamale suñu borom ak ñaneen bi rabbihim moom dañuy yamale suñu borom ak ñaneen foofu baatu addu la jëfandikoo kon foofu yamal lay firi hmm. ñëwaat feneen tamit fi ma allah bal hum xawmun yaadiluun waaw ndax am na jeneen yàlla ju fi nekk ak yàlla suñu borom subhanahu ñoo taala ñu ne déedéet mooy li am daal mooy kon ñoom ñii kat yëfar yi ay nit leen ñoo xam ne dañuy yemale yàlla ak ñeneen bal hum xawmun yaadiluun kon baatu adl ñëw na foofu ba tey kon ñoom dañuy def dañuy wutal suñu borom kum nuróol ci nguuram ki ñëw na feneen tamit foo xam ne day wax aw adlu dalika siyaaman benn mu mu saraxe wala fekke amut lu mu saraxe mu jox mu joxe lu tolloog sarax ba ci koor adlu zalika lu tolloog sarax ba ci koor kon foofu adlu kon fete mu sawat la firi yamale kon demel war a suñ fa seeblaat baatu adlu moom ci loxa mm-hmm. mooy al musawat yamale kon buñ ko waxee la mooy kon nit ki. mu xool ñëpp. Mhm. xoolub yamale. yamale waaw ah, bañ a parfarloo. Mhm. bañ a exclure kenn. Mhm. waaw bul exclure kenn bul parfarloo kenn bul féetee kenn. bul dàq kenn. dàq kenn yamale ñëpp loolu mooy baatu àddul. macha allah kon demil. loolu boo dee ci loxo daal la kenn loolu la. waaw euh, ko mooy dañ rek. Euh, day day toujours toujours day wax ne concept day làmboo maanaam linguistique ba noppi. moo tax kon dañu wax ne yamale. yamale nit ñi. yamale nit ñi ku nekk nga jox ko ay àqam ba mat bañ ko wàññi. bañ ko wàññi waaw te bañ di bañ di bàyyi xel wala di considérer maanaam xañ na couleuram wala diineem. Mm-hmm. wala dëkkam wala yeneen. maanaam da ko da koy jox ak rek ngir na moo ko yelloo ba bañ benn considération. wala mm-hmm. sama mbokk la wala sama mbokk sama mbokkum dëkk la wala sama mbokk ñu bokk couleur wala ñu bokk melokaan yu mel ne yooyu yëpp taxut euh, nga def waaye da nga koy jox mm-hmm. euh, caa ëppal maanaam ma saa wax mbir mu nekk nag nga teg ko ca place am. Mm-hmm. ndax suñu borom moo sàkk adduna na li koy defar. moo tax xam na lu si jaar lu si nekk rek teg na am na fu mu war a nekk boo ko tegee fu mu war a nekk nag loolu mooy maanu nga loolu mooy maanu kon moo tax maandu googu nag day lambaale maandu ci àqi suñu borom ak maandu ci àqi jaamam ji maanaam àq yi nga xam ne suñu borom da ko yelloo nga jox ko ba mat sëkk mm. yi mu waral ci yow àq yi ma xam ne da laa war a yow mm. nga yoral ko ko suñu borom moo xam sa alal la wala sa yaram la wala ci yëpp la nga jox ko ba mu sëkk waaye àq yi nga xam ne tamit euh, da nga koo yoreel sa moroomi jaam ñi moo xam ci alal la wala ci sa yaram la nga jox leen ko ba mu sëkk nit mm-hmm. loolu mooy mm-hmm. loolu mooy euh, bi su ko defee nag day mel ne euh, ñaaral dañuy faral di teqale diggante yamale mm-hmm. am nañu tudde musaawaat ak xistu Mhm. bu dee ci bu dee ci dañ faral di wax euh, maanaam. Mhm. équité. équité ak li euh, ñu tuddee euh, kii. égalité égalité. Mhm. égalité du benn. alxuraan da koo nañ dafa leer nañ ci alxuraan ci mooy daal bu dee xaddul daal. mooy nga yemale nit ñi te bañ a xool. benn maanaam wala jege gum la jege. Mm-hmm. waaw loolu loolu mooy kii su ko defee tamit ku nekk nga jëflante ak moom. Mm-hmm. nam nam jaadoo rek. jaadoo waaw. Mm-hmm. wala alxuraan isa xakum du bay nas an taxkumu bil adli loolu ba tey noonu la kon ñëpp daal yow sëw gi daal dama waroon nag benn même benn niveau bi daal benn dañ toll bi ci ni nga jëflante ak ñoom. Uh, moom la alxuraan di wax tamit wala yajrimannakum wala yajrimannakum shana'anu qawmin ala allaa ta'dilu maanaam uh, nit ki loo ko bañ nga ñàkk a maandu ci moom. su ko defee defee nag euh, day mel ne léegi ñaare bu ne yamale rek dañu jàpp ne mooy ñëpp nga nga toll. yamale tekkiwut tollale. tekkiwut ndax ñu tollawul nga tollal leen. maanaam loolu du maandu. waaw su boobaa day mel ne maanaam du ñëw du ñëw. te yi tamit Touba Touba mu jox misaal rek Cheikh Bassirou dana ko wax ci màggal gi. Touba ni mu toll nekk ñaareelu ville ci àddu Sénégal. yaakaar naa ne euh, soo ko bëgg a yemalee beneen dëkk. bu mu toll loolu. ca la la fa war la fa war def ci ay infrastructures yu mel noonu. su boobaa am du am. waaw maan du moo tax alxuraan xestu lay jëfandikoo. waaw loolu mooy dëgg mooy ku ci nekk nga jox ko ak àqam mm-hmm. moo tax loolu ñuy wax ne ku nekk ak àqam nga koy jox soo ko defee loolu mooy moo tax ñu ne dañ def équité bañ a def égalité. ndax bu dee égalité mooy da nga toll la ñu la ñu tolluwul nag loolu du maandu. Mm, toll la ñu tolluwul loolu du mm-hmm. maandu. mooy ku nekk nga jox ko àqam. Mm-hmm. lam laaj nga jox ko loola. Mm-hmm. moo tax ñu ne euh, moo loolu ñëw na lu bari ci alxuraan loo xam ne waaw waaw bu ko misaal bi xist bi dañu mooy loolu. mooy mooy équité mooy loolu. mooy nga xam ne ku nekk daal da nga koy jox ak xam. waaye su fekkee da nga koo jox loo xam ne. yëlloowu ko. loolu. Hmm. ngir bugg ko bëgg a yemale keneen. Hmm. loolu su boobaa maan doy daal dàq. Hmm. Euh, ku nekk euh, ak xam daal. lim yàllool ko ku mën a doon rek. na naa leer na nañu. waaye delloo guñ ci alxuraan bu baax a baax ngir ñu xam prix bi dëgg-dëgg. mel na ni indi na ko ci barab yu bëree bëri. defe naa ni nga ko ni nga ko xamlee ak uh, bu ñuy xool ci lislaam mm. jamono yi nga xam ne jàll na ak suñ jamono tey jii mm. uh, du ñàkk gën nañoo soxla gën nañoo soxla lu mel noonu mm. nguur yi tey rawatina kon dana dana dana baax ngir ñu mën koo jëriñoo dëgg-dëgg ñu xam euh, import importance bi maanaam solo si solo si solo si loolu am dëgg-dëgg yaakaar naa buñ ci taxawee nit ñi gën koo jox yitte kon solo si noonu ci ñëw les mm, jërëjëf si Abdoulaye macha allah mm-hmm. jërëjëf ci laaj bi mm-hmm. waaw ginnaaw bu ñu xamee loolu ba yaakaar naa solo si mm-hmm. euh, gën naa nekk nii fii tal jamono ñu nekk euh, rek dañ njëkkee ne moo tax mu suñu borom yónni yónent yi yontu yëpp suñu borom dina yónni ngir ñu taxawal ak maandu laqad arsalna na bil bayinaat wa anzalna maahumul kitaaba wal misaan li yaquma annaasu bil qisti gisoo ba tey suñu borom ne na damaa yónni yonent yi ay lay yu leer nañ wàcc leen suuf ñu ànd ak ay téere yu jógee ci man ak balance yu leer ngir lan ngir mbir nit ñi ngir nit ñi di ci taxaw ci ngir ñi di taxaw ci ak maandu li yaqumu naas bil qist bi sa foofu baatu qist la jëfandikoo mm-hmm. ci équité nit di taxaw ci ak équité toll kii ku nekk am ak xam mm-hmm. bañ a tooñ kenn kenn bañ kenn kon kon day mel ne kon li tax ñu yónni yónni yi kon mooy li iqaamati qist bayna naas a ngi taxawal ak maandu ci nit moo tax ñu yónni moo tax ñëw na ci alxuraan lu bari ñëw ci xadis yu baree baree bari. Mm-hmm. Euh, ñu wax ci wàllu wàllu maandu. Mm-hmm. bokk na ci xadis bi ma a wax mooy boo xam ne mën naa leeral li ñu a wax. Mm-hmm. ci ne yonent bi sala wax na ne mooy jamono yi nga xam ne euh, noo jaaroon ci Usaamatu te ñëpp xamoon nañ ko si yonent bi bëggee woon. mu tinu euh, jenn jigéen bi bokk ci benn maxsum. ngir lu mu defoon. ba Usaama ñuy wax ko yonent bi alayhi salaatu salaam ko wax kero xaw na mer lool mm-hmm. na daal mm-hmm. xanaa xamoo ne Usaama mm-hmm. sama doom jii di Fatima bu sàccoon danaa dëgg loxoom te mooy sama doom sama dereta kon nag keneen mu te wax kon loolu mooy day day junj rek ne moom day yemale nit ñi day yemale ñëpp ba ci doomam sax moom atte bi daw ci ñëpp mooy daw ci moom loolu mooy yemale kon mbugal mi man lay doon mbugal mi man la moo xam ku ko mën a def ku ko mën a def foofu nag fa la dayoo maandu hmm. su ko defee kon euh, maandu googu tamit day dem ba laal société bépp société bépp dal maanaam kii atte war na maandu ci ki muy atte buur war nay maandu ci ay baadoolam man ko wax man ko mën a waxee daal ci ñi ci yilif daal la bëgg wax xëy baat bi léeg-léeg di xaw kii hmm. maanaam ki yàlla jox nguur mm-hmm. war nay maandu ci ñi ñi ñi mu yilif nga xam ne moo moo leen féete moo leen yor moo yor seen daal mm-hmm. ba ci directeur bi sax ne ci liggéeyam war na fonctionnaire yi ne ci moom sax daa war a maandu ci ñoom waaw jëflante ñoom ci équité mm-hmm. hmm? euh, ki la féete kaw ngay maandu ci moom di ko jox ak xam ndax comme yàlla dogal mu am lu mu la féete kaw nga nangul ko loola jox ko ak xam ak maandu ku yàlla jox mu féete kaw nanguloo ko kawe ga loolu booba booba tooñ nga ko loolu maandoo ci moom daal ndax ak suñu borom ko defal euh, mu nangul ko lool nga topp ko ngir hmm. euh, ci moom kii ki gën a néew doole ci yow tamit bu tey na nga ci moom te mooy bul jar bul exploité néew dooleem googu ba di ko di ko di ko lor wala di ko tooñ mm, kon doon ki la féete ki la féete suuf nga xam ne yaa ko féete kaw nga xam ne kon day mel ne kon moom da la gën a néew doole war ngaa maandu ci moom ba boo doo jariñoo lor ak ko wala nga exploite néew doole gi ba di ko lor wala nga di ko tooñ wala su alxuraan dama isa xakum du bayna nas an taxkumu bil adli mm-hmm. muy aay boo xam ne dañ koy faral tegtaloo lu bare bari Euh, ci lu mel noonu attekat yi tamit ci àdduna sëpp di ko tegtaloo ba tey euh, bokk na ci li ñuy tegtaloo ci loolu tamit benn wax xibaara boo xam ne siiw na lool mm-hmm. am ñu wax ne euh, imam Xazali moo ko wax Abu Hamid al Xazali am ñu ne ko wax mm-hmm. ñenn ñu ne la te mooy al adlu asaasul mulki mm-hmm. waaw xibaara boobu la siiw na am ñu ne Ibnu Xaldun la am ñu ne Abu Hamid al Xazali la waaye loolu si a am mooy ne nguur moom la ko mooy ak maandu ne saa bu saa bu maandu fàddoo day mel ne boo xam ne dafa amul fandu mag lu ci topp mooy daanu de lu bari di wax ne euh, ñu bari xamuñu ne ak nguur gu maandu ak nguur su maandoo nguur googu day taxaw yoon donte nguurug yëfër la mm-hmm. doon nguurug kàccoor la comme ci maandu la taxaw rek maanaam du yomb daane lay taxaw yoon mm-hmm. suñu borom da koy taxawal waaye nag nguur goo xam ne ci tooñ la taxaw moom su suñ nguur du taxaw day daanu donte nguuru jullit la dañ ko kon nañ mm-hmm. maanaam bun bun bun bun bun jàpp mukk ne Euh, lii nguurug lislaam la rek te taxawul ci maandu du fi jóge ah kay bépp nguur goo xam ne taxawul ci maandu rek tout dafay jóge trop tard donc ñu ko ñu ngi lislaam sax na nguurug lislaam la mm. euh, loolu yaakaar naa histoire mm. euh, mm. waaye booba état état nguur nguuraan yu bari taxoon na ak maandu amut loolu taxoon na ba islam daanu mm-hmm. te dawla islam la woon mm-hmm. waaye comme ada maandu foon rek mm-hmm. dafa daan ndërmelu waaye nguur nguur goo xam ne ci maandu la taxaw donte nguuru kéefar la nguur day tax loolu na boo xam bu ko ko wax loolu day dëggal rek ne kon ne al adul asasul mulk waaw day mel ne nguur daal la ko la ko taw téeku mooy maandu waaw lu mu mën a doon rek la ko taw téeku bu fa jógee loolu daan daan dong lay def nërmelu rek lay def kon yàpp na ne daal euh, loolu nga xam ne ñu bari na Ibnu Xaldun moo ko wax ma gis na ko kiloon mhm. jàpp na loolu mhm. su ko defee bokk na ci li nga xamee soloom ba tey nag mhm. ci Abdul Ahad mooy ne euh, souvent bu ñu suñu borom buy wax maandu ci li ci li da koy da koy digle digle te lépp loo xam ne ndigal lay ñëwee jóge suñu borom jëm si ñun rek kon xam ne loola lu fonk la lu mu lu mu lu mu lu mu lu mu la moo tax euh, loolu wane na maanu dal ñëw na ci lu war a bari ci ay yu yoo xam ne suñu borom baat baatu ndigal digal digal inna laa ya'murukum bil adli wal ihsan inna laa ya'murukum an tuwaddul amaanaati ila ahliha wa iza hakamtum bayna naas kon loolu wane na kon solo si na kon ñëw gi muy ñëwee ci di ñëwee ci formule ndigal hmm, xam ndigal la jógee suñu borom jëm ci ñun loolu wane na solo waaye tamit euh, noonu tamit lay diglee maanu ci wàll yëpp ñoom ay wax de bëgg ñu ci maanu kuy wax la ngay wax mu nekk lu maa wax di maanu joo xam doo ca kenn doo ca xañ kenn ak xam hmm. man doo fekk doo set kilifa gu mag koo xam ne suñu jox na ko daraja ngay wax di ko di wàcc darajaam ñëpp di ko dégg loolu du maandu kon moo tax ma ne wa isa qultum bu ngeen dee wax di leen maandu kon ay wax des ci maandu mooy des ci tooñ des ci fay des ci des ci nga fay borox mun des ci wàcc àq kenn wala darajaay kenn soo ko defee rek yaa ngi safaanu maandu yaa ngi tooñ te tooñ suñ borom yonent waxoon na ne bu yomal ma ay lëndëm lay doon bu nit ñi dox ci leer nga xam gaa yu baax yi seen leer yi eh, moo leen di leeral ba fa ñu jéggi sera du am benn jafe-jafe ba ñeneen sax dañ leen di ñee naan leen ah, tey ñoo niital seen leer gi ba man hmm? mën a xam fu ñuy jaar mm-hmm. hmm? nabtawis min nuurikum waaye nag ki nga xam ne tooñ moom leer googu du ca bokk donte julli la ah waaye daan tooñ mm-hmm. leer googu du ca bokk bokk ca leer googu waaye euh, ndax ngir ngir toon ndax ak zulmu zulmaatun xiyaama kon ay wax da ci maandu mooy kenn du ci wax wax wax xotti war may kenn ba ci bind sax bind sax ba tey suñu borom di digle kuy bind li ngay bind nga cee maandu wala yaktub baynahum kaatibun bil adli ki bind ci yéen ne bind maandu kon noonu kon kenn wërta jël pilimam mm. wala bigam di bind loo xam ne ak tooñ la tooñ la waaye waaye lu maandu lu bind maandu du xañ kenn ak xam du wàcc wax na may kenn ci la muy bind waaye tamit bokk na ci li wax ne kenn solom tamit mooy ne yonent bi limaale na ko ci eh, loo mu yoo xam ne mook sarax ñoo tolloo kon xam ne sarax tuyaaba ju la waaye kii maandu am na tuyaabay sarax hmm. nee na ñaar ñu ñëw ci yow <clears throat> day àtte wu nga maandu seen diggante. Mm-hmm. loolu day tolloog sarax. Mm-hmm. léegi. Mm-hmm. savane mooy ku ko defut da ngay ah, tooñ te kuy tooñ moom résultat ba suñu borom ko ci alxuraan. tilkal xuraa ahlaknaahum lammaa zalamu waaw dëkk yooyee tàmm leen dara lu tooñ doon tooñ rek tooñ moom léeg-léeg sax suñu borom du ko xaaree ëllëg dañuy dañuy bugal ci àdduna wala wala ñoo kii. wax na tamit bari na dëkk yu bare bëri alag naa leen. Euh, lu te loolu la ko war mooy jamono yooyu doon tooñ. Mm-hmm. fakki ay min xarit alak naa waaye zalim loolu yëpp day dëgg li ñu waxoon ne. Mm-hmm. maandu nguur. Mm-hmm. bari nguur yu alku yu jeex. yu daanu. ci àdduna bi suñu borom waxoon nañu ko la tax ñu daanu du dara lu dul suñu borom moo leen ndax tooñ gi ñu tooñ. fakka fakka in min xaratin ahlaknaa wa zalma kon bu ñu wax ne alhadul asaasul mubin ah daanaka man mën na dañ koo seggee ci aaya bii rek mm-hmm. fakka fakka in min xaratin ahlaknaaha wa hiya zalimatu mm-hmm. kon day mel ne nguur yu bëree bëri yu jeex mm-hmm. yu fay yu amoon ba léegi amatul dara waragul lu dul tooñ gum doon tooñ fakka in min xaratin ahlaknaaha wa hiya zalimatu kon Cheikh Abdoulaye yaakaar naa ne. loolu bokk na ci li lii kii nga xam ne kon. suñu borom da ko farataal tax si yonti bi sax nag. dama ne ko da ngay maanu. falizaalika fad'uhum wastaqim kamaa umirta wa laa tattabi' ahwaa'ahum. wa qul aamantu bimaa anzala Allaahu min kitaabin wa umirtu li a'dila baynakum suñu borom damaa digal. may maanu seen seen diggante kon loolu lépp kon loolu loolu kon loolu wane na kon li ñu li ñu wax daal ci yu mel yëpp wane na kon. Hmm. soloom moo tax kon képp koo xam ne daa jël maandu def ko baasu nguuram man li muy def lépp ci maandu la koy teg dañuy wax ne dooleem day gën di yëkkatiku waaw dooleem day nguuram day gën di mag ndax nag sunu borom du daane nguur gu taxaw ci maandu dont donte donte nguur gu lislaam sax nag. waaye nag koo xam ne nguuram da ko teg ci ak tooñ di xañ nit ñi seen i àq di neenal seen i droit ak nguuram du man a sax doonte nguurug lislaam la sax comme ni ko Ibn Taymiya waxe woon loolu kii la euh, Ibn ngi wax ci muqaddimaam boobu ci benn bunt bu mu tudde sax tooñ day wane day déclaré maanaam faruk adduna bi azulmu muzinun bi xaraabil umraan mm-hmm. dana ko tudd ci buntu boobu ma ngi ca ne ak tooñ su su ma maanaam dëkk ba mu wisaaroo day ràpp su ko defee mbir jaam ña fa ña fay dund seen situation gën a gën gën gën a gën a doy waar mm-hmm. loolu wax moo tax euh, xalifa bu tedd wax Omar ibn jamono benn bis kenn ci euh, ay góornóoram da ko bindoon lettre ne ko daal dëkk bi ma nekk daal dëkk bi daa ràpp lool léegi nag damaa doon xalaat doon càkku ndigal nga jox ma ndigal ci euh, ma jël ci alal yi baytul maal defarat ko defaraat ko loolu la ko dëkk bi daal ràpp ràpp goo xam ne laaj na daal ma jël ci alal ji rafet defaraat ko daal mm-hmm. ba mu waxee la Seydina ne ko naa sa leetar bi jàng naa ko xam naa la ci nekk dangaa wax ne sa dëkk boobu nga nekk dafa rapp nga bëgg sàkk nga sàkku ndigal nag ku la noo ko noo ko noo ko noo ko ci alal baytu maal li mooy sama lettre bi boo ko jàngee mm-hmm. dëkk boobu na ko defaraatal ci maandu waaye ci alal yoon yoon mi si nekk yoon yoon dëkk ba yëpp na nga ko setal ci ak tooñ ba ak tooñ du ci amati mm-hmm. loolu soo ko defee kon dama ne réparer nga dëkk bi réforme waan nga ko mm-hmm. kon réforme bu dëkk bi daal mi ngi ci mm, nga setal ko ci ak tooñ mm-hmm. hmm? mi ngi ci nga saxal fi ak maandu loolu daal mooy mooy defar dëkk bi am na keneen ku bindaatoon sax mooy kii góoróonoo bi nekkoon Xuraasaan bindoon na ko bis ne ko daal ñii ñii di waa Xuraasaan daal ay baadoo la lan yoo xam ne ñu jafee yilif leen te gis naa ne daal pour nga yilif leen foog nga yor sa jaasi ak saw yat soo ma joxee ndigal daal ma jëfandikoo ñoom ci loolu Omar Ibn Abdul Aziz tontu ko ne ko jot naa sa lettre yaa ngi wax ne waa Xuraasaan day danoo ñàkkub yar mm-hmm. tey leen foog sa jaasi ak waxoo dëgg de loolu Seydina waroon na li nga wax dëgg amult ñooñu la leen defar du aw yat du jaasi waaye ak maandu moo leen defar hmm, dëgg moo leen defar kon tàllal seen tàllal loxo da nga doxal ci ñoom dëgg ak maandu daal na wa salaam hmm. kon loolu ba tey day wax day wax la keneen moo tax ñu ne am benn wax boo xam ne moo tax islam kon day mel ne miiram dëgg-dëgg bi nga xam ne miiram bi nga xam ne moo mooy mooy am bi ko dëgg. ak buntam am na miir am na bunt. ñu ne lislaam mooy dëgg. dëgg waaw. Mhm. waaye bunt bi nag mooy maandu. <laughs> miir bi nga xam ne moo aar lislaam moom ñoom mooy dëgg. Mhm. waaye bunt bi nag mooy mooy maandu. kon tànk mi ngi euh, tànk mi islam dana ki moo jiite tànk mi nga am doole. ko islam na ci jàmm waaye nag doole doole doole buur nag. Mhm. nekkul ne ci jaasi la ab yato yooyu mooy di doxal dëgg ak di jëfandikoo maandu loolu ñu ne mooy dooleem tànk mi ngi ci loolu rek moom day mel ne mi ngi ci mi mi mi nga am doole. Hmm. su ko defee loolu du neex ñaaj kon daal yaakaar naa si Abdoulaye. Hmm. lu am solo la loolu bëggoon wax ci. Hmm. kii bi la am solo macha allah. mirubul islam mooy dëgg waaye bu ñu mooy maandu ko yaakaar naa bu ñu jëfandikoo maandu ko ñu yàlla digal moom. dugg gi dana bëri hmm. <laughs> macha allah. léegi sëkk ji wax dëgg yàlla leeral solo gi ni ko waxee rek loo xam ni moom saa bu ko yàlla tuddee. Hmm. day gis ne da koy digle. Hmm. <laughs> loo xam ni it mooy tax ak nguur taxaw. loo xam ne ëllëg it ku ko def ab safaanam. dalee xañu leer wax yàlla loolu moom. doy na sëkk ci solo ni ko leeralee macha allah. defe leer na nañu daal ci ci ngir ñu xam solo si. waaye bu ñu xamee solo si ba noppit eh, yaakaar naa lañ ko mën a jafee jàmm. am na jafe gi lu muy jur. Hmm. loo xam ni moom mën nañ ci mën nañ cee mën nañ cee teg lu xëy na. Hmm. ni lii moom mooy mooy doon jeexit ji. misaal hmm. jeexit ji. maanaam jeexiti maanu googu su ko ak nguur bu ci ak nguur euh, tabaxoo. jan jeexit jan jeexit lañuy. lañuy seetlu boobaa waaw. jërëjëf sëñ Abdoulaye. maanaam jeexit ji mooy mooy su amee. saa boo xam ne ak ak maanu euh, daj na am réew. kenn du leen kenn. la tàmbalee ci féete kaw ba ci féete suuf ku nekk di jot ak xam loolu jeexit yow lu rëy rëy doon mooy ne boobu dëkk day na am naataange day am naataange day am sécurité. ñi ñu néew doole ñi dañu am ñu leen fat ñi ñàkk ñi tamit dina am ñu leen di dimbale. kin tooñoon day am jamono jënd koo xetli ki ñàkkoon wërsëg dana day jamono jënd wërsëgam mbooloo mu tàqali ko woon day mën dajaloo waat kàddu gu day mën a nekkaat benn buumi mbokkoo yeeg buumi xaritoo yi dëgër kon day mel ne maandu mooy dajawaay mbir yëpp rek yëpp ci la mm-hmm. yëpp tamit ci la dajaloo mm-hmm. ngënal yëpp tamit mooy bopp daal day mel ne pour ñu am texe pour ñu amuk dal ci ab société mm. fokk ñu ak maanu am fa mooy tax nit ki am sécurité ci boppam mm. am di sécurité ci alalam da am sécurité ci ab deram ab deram nga xam kenn kenn du rey kenn mm-hmm. kenn du siif kenn kenn du yàq derub kenn ndax xam na ne yooyu yëpp ak tooñ la safaanu maanu la waaw te kenn du ko def nga xam na ne nga xam résultat la ci la ci juddoo fekk moo tax ñu ne fekkente ne daal ab société yëg na am du muy dund ak maandu kon yooyu yëpp day da ci am noonu su ko defee jeexit ya bokk mën nañ caa lim ne euh, day mel ne kon suñu borom ni mu adduna àdduna muy asamaan suuf danoo taxaw ci ak maandu kon moo tax ki tooñ da jot ak xam ci ko ko tooñ loolu bokk na ci ñaareel bi tamit Euh, kii ak maandu ki ki def ak maandu day am cofeel ak suñu borom subhanahu wa taala mm-hmm. kii maandu suñu borom da koy bëgg wa aqsitu mm-hmm. inna allaha yuhibbul muqsitin na maandu mm-hmm. borom daa bëgg ñiy maandu kon day mel kon euh, su ak maandu amee rek day daal am ngërëmal suñu borom ak cofeelam te loolu moo lu mën a doon ñaar bi tamit ak maanaam fu mu am tamit ak cofeel ak soppante day am ci diggante ki yilifi ak ñim yilif la ko tàmbalee ca ca kaw buur ba président de la République ba su maandoo amee foofu rek ña peuple bu ne ci ginnaawam ñëpp dañ koy bëgg koy bëgg moom moom it dañ bëgg kon cofeel day am ci naka noonu boo wàccee ba ci suuf tamit euh, képp ku ci suñu borom jox ndomba tànk nga am ñoo yilif ba ci boroom kër bi sax ci këram su maandoo rek maanaam njaboot gépp dañ koy bëgg moom it du am jafe-jafe ci ak njabootam leen bëgg lool kon demel demel su amee ci la ak cofeel di amee léegi loolu waxoon rek ne mooy mooy mooy baas nguur daal mooy baas bi loolu dëgg mm-hmm. allah dul asas mulki mooy dellu si waat foofu rek waaw mulki bi nag mën naa yaatu lool mm-hmm. mën naa nekk président de la république mm-hmm. hmm? mën naa nekk ministre ba mën naa nekk ba mën naa xalifa ba mën mhm. naa nekk imaam mën naa nekk borom kër ba mhm. yooyu yëpp ba na wàcc rek ku ci nekk rek am nañu ne sa suuf ñoo xam ne mhm. soo jëfandikoo maana ci ñoom doo leen tooñ rek loolu day gën a loolu la nga nekk di gën a a sax waaw day gën a sax di gën di màgg lu mel loolu kon daal day mel ne cofeel googu ci looy amee naka noonu tamit mooy tax ab sécurité di am ci ab société waaw cofeel ak bëggante di tasaaroo waaw loolu mooy tax loolu mooy tax bëgg di mën a am ci ab société mu nekk bu nekk daal kon euh, dana tax tamit xol yi di miinante daal di bëggante day boole xol yi daal day boole xol yi euh, loolu mooy tax euh, même ñi nga xam duñ duñ ay julli sax mhm. soo jëfandikoo maanu ci ñoom maanaam da da nga leen xëcc ci lislaam xeemam loolu leen mhm. xeemam loolu leen eh, yaakaar na ci bu dee nafar histoire l'islam mhm. bari nañu bari ñu dugg ci lislaam maanaam maanugul islam moo tax ñu dugg ci mhm. maanugul islam moo tax dugg ci Seydina Omar buur boo ko fekk set si woon seet si woon yaakaaroon boobu islam ni amee doole rek xam jamono Seydina Omar ci la islam amee yaatu lool buur ba yaakaar bu ñëwee comme ni nga ci buur yi ma mhm. dafay fekk maanaam adduna adduna lépp fekk ko ci taatu garab mu tëdd nelaw laajte ko ma nga kële ma ma kii nga mu tëdd <laughs> mu tim ko fekk mu nelaw amul garde corps amul dara mu tiim ko ne ko ah da atte de mhm. daal di maandu moo tax nga ma nelaw sans garde corps sans leneen waaw <laughs> waaw loolu rek mooy loolu war na loolu kon ne maandu su amee rek su sécurité mhm. mooy am kóolute mooy am kon mbokk mooy sëñ Bilane yaakaar naa loolu bëggoon na andi ci tam bi <laughs> ci tolloog yi euh, mhm. xam ne ñu sëroon ci ndax lii mooy lii xam ne ñu ko jëlee ci nag ci lettre bu yaatu boo xam ne comme ni Cheikh ni ko xamee rek. moom toon ku ñëwal buur ci di fekk buur wala lenn. waaye ñoom xamoon nañ xamoon nañ ko ci yàlla. ba daan ñëw ci moom di sàkku ci moom seen mbiri àdduna ak seen mbiri diine. kii nag doon sakk ci moom sëñ bi mu mu laabire ko. Mm. ci mbir àdduna ci mbirum ci mbirum mm-hmm. waaye lam wax. bu ko bu ko jëfee. Mm-hmm. dina yéwénal addunaam dina yéwénal alaxira dana tax mu xam li muy jëflanteeg la ko suñu borom jox ci alal ci barke. ak ci pouvoir muy alal muy ay nit. Mm-hmm. dana xam ne lu ñu jëflante xam xamal ko la ne kon lii lu jaar ci yow la rek di jàllaat. lu mu nangoo ci yow ñeneen rek jox la ko te dina ko nangoo ci yow jox ko keneen. waaw su ko defee nag pour lool loolu nag loolu pour mu mën a yàgg ci sa loxo yàgg sa loxo nag hmm, da ngay jëfandikoo maandu bañ a tooñ bañ a a jàng. ndax lii nga nekk nag li ko lal. Mm. téye ko. Mm. mooy ak maandu. saa boo ko sàggee rek day daal di nërmeelu daanu kon alhamdulilah asatul mulk si Abdoulaye waaw. <laughs> maandu maandu kon jar na jëgam macha allah mm. jërëjëf suñu fàllu ci leer am solo yooyu. Euh, mooy ni ko waxee rek lépp di ay bind yoo xam ne ñu ko jukkee ci njàngalem sëriñ bi rek. loo xam ni euh, li nga leer la jeex ji moom euh, mel na ni jamono ñi nekk moom. jeexiti ñàkk a maandu bari na. Mm. loolu rek day day day gën yokk solo rek. Mm. waxtaane gi. Mm. ak it fàttali gi macha allah eh, leer na naññi leer na naññi kon xam naa dañuy ñëw rek ci delluwaat lu kàddu gi rek ngir nga joxe sa kàddu gu mujj. waaw xëy na boo yoo xam ne xëy na ñàkkul ne teewlu nga ko. waaw macha allah jërëjëf a Abdou mm-hmm. na waxtu bi sax muy yat mm-hmm. nañu. sant bu ci eh, idaarab jalsa bi. Mm-hmm. macha allah. Euh, laaj yi ni nga ko indee may nanu mm-hmm. ñu jéemoo sàmmanteeg li ñu cërloon ci waxtu mm-hmm. waaye tamit jéem a tamit euh, tarkiis waxta waxtaan wi mm-hmm. ci euh, niñ ko niñ ko jukkee woon ndax ba bëggoon ci waxtaan ci àndaale nii rek màndu rek da doon yaatu waaye nag comme dañ ko tënkoon ci nan la nekkee baasu nguur kon moom ni nga ko posé question yi may nanu ñu gën a basé ci tënk ci loolu di sant bokk yi ñëpp di leen ñaanal di ñaan suñu borom dajal na ngërëmu Seexul Xadim ci li def ci weeram weeru weer bi ci xeeti eh, coobar yu jaamu yàlla yoo xam ne da ko def lépp ngir def ngërëmul suñu borom waaye di sant la Seexul Xadim radiyallaahu anhu boromam ci xéwal yi nga xam ne defal na ko eh, di ñaan ñu fekk ko déwén bare bare bari te mu nekk rek yëg mm. eh, di yokk xéwal yi di yokk mm. Euh, jaamu yàlla suñu borom di ko gën di nangu euh, sant mbokk mbokk yi ñu bokkal rawdu rayaahin sant mbokk yi di nekk ci daayira mu xadmatu xidma mm-hmm. tey taxawee barabu tedd bi mm-hmm. euh, di leen ndokkeel tamit ci weeru tedd bi wasalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam sëñ Fall <laughs> jërëjëf xam mm-hmm. naa moom mel cant. <laughs> ñu ngi sant baax ci waxtaan bi. di sant bu baax cant gën a yaatu ci yeneen yoo xam ne daal moom ak lañ ko seq ci taxawaay bi ci xam-xam. Euh, macha allah di ko jox euh, nit ñi ci anam gu am solo. yàlla yàlla gën a barke lépp. kon mbokk mi ngi noonu mu ne kon jotaayu bi nga xam ni moom mooy lu mënta ñàkk ngir am nguur taxaw. Mm. ngir am nguur taxaw waaye nguur googu rek lu yaatu la yaatu lool lool. képp koo xam yilif nga rek la nga yilif moo mën a mucc ayib faaw da ngaa a maandu képp képp koo xam ne bindeef nga yàlla bindee da ngaa a maandu ngir maandu mooy tax lu ñu indi ci kaw suuf ñu mën koo def ci anam gim gën a kenn du tooñ kenn kenn du waa kenn du kenn du lor kenn lépp mën a mën a jaar ci yoon yaakaar naa ni ko suñu tool indee eh, da ngeen jariñu bu baax a baax ngi ñaan yàlla lépp nekk njariñ lépp loo xam ne rek xëy na dëgg na ci ci man maa ngi koy jéggul lépp loo xam ne ci ñoo xam ne yàlla ko bëggee noonu ñu yeesal a cant bu baax a baax nag rodu rayaaxiin mi nga xam ne mooy ànd ak muqaddimatul xidma moom ñu koy sant bu baax ci taxawal gi ñuy taxawal jataay benn nii ngir yaatal xam-xam ngir yaatal njàngaleem sëñ bi rawatina ci fan yi nga xam ni dëppoo naa waxtaan yooyu lool ñaan yàlla bu baax cant gi nga xam ne moom la sëñ bi woote ñu def ko ci anam mu ko bëgg tam nangul ñu ko di jox mbokk yi dig daje incha allah yeneen détail si leen sant bu baax a baax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.